بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه دعا زكريا أباه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه أجمعين mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di julli ci sangu bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallama di sant Cheikhul Xadim di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom yàggal ko fi yokk ak wéram te kàttanal ko ba li mu naan lépp mu eggale ko ci jàmm ak salaam. Euh, di leen fàttali ni tey jii ñu ngi fii ci cité Kër Xaadim kër Serigne Abdou Khadir Niang sëriñ Djili Niang mi nga xam ne moo initié grand prix Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul muy concours bu mag boobu nga xam ne moom lañ tuddee Cheikhul Xadim radiyallahu anhu euh, te tàmbali woon ko depuis ay weer ñu ne ci di liggéey ba yàlla dogal mu avancé lool. ba am euh, xew-xew bu am solo boo xam ne ci concours bi la aju muy cérémonie bu màgg boo xam ne ñu ngi ko war a organiser fii ci Massalikul Jinaan le 2 juillet incha allahu taala fii ci jumaay Massalikul Jinaan ci Dakar euh, xew-xew boobu nag doon xew-xew bu am solo euh, yitteel lool grand prix bi ak ñi ciy liggéey ndax candidat yi nga xam ne ñoo jot jàll ci première segg bi ñoom ñëpp danañ fa teew incha allah dana am ci ñoom ñoo xam ne dañ déglu seenum njàng. Euh, kilifa yi nga xam ne ñoo ngànk barab ba itam danañ jël kàddu euh, kilifa yi diine yi nga xam ne ñoo fa teew ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha ñoom itam danañ fa jël kàddu autorités yi ak ñi nga xam ne ñoo ngànk réew mi ak mboolem association islamique yi itam ñoom ñëpp danañ teew incha allahu taala euh, mu war am fii ci jumaay Masalik le 2 juillet incha allah loolu nag ci lañ nekkoon di ko waajal tey jii ci yu ñoo boo xam ne mboolem ñi nga xam ne ñoo bokk ci Grand Euh, te nekk fii ci di ay membre ci grand prix bi di ci ay liggéeykat yoo xam ne dañuy volontaire rek ngir yàlla ak jëm Cheikhul Khadim ñoo fi daje woon tey ca suba ba léegi ñu ngi fii euh, ku mel ni sëñ Ousmane Fall mi nga xam ne moo jiite organisation bi euh, sëriñ Mourtala Gaye mi nga xam ne ci wàllu communication bi ci la nekk sëriñ Mohamed Jakite mi nga xam ne ci wàllu sérigraphie bi ak wàllu comité directeur bi ñu bare bari macha allah teew nañ fi sëñ Abdou Karim ña ñoom. ak ñu bare bari ci mbokk yi daal euh, ñi ngi fi ñu doon waxtaane nag loo xam ne moo jëm ci bis boobu nga xam ne moom la ñu dëdmal ci ay détails nag ci ndax bëgguñu dara sooxe te leen lu bëgg nañ mu jaar ci euh, fi nga xam ne fi la war a jaar loolu moo taxoon mbokk yi daje fi tey euh, ci suba ba léegi ñuy waxtaan ba macha allah point yi bare bare bare bare alhamdulilah jël nañ ci décision maanaam finalisé nañ ko ba leen lu ne ñu xam ca fañ ci teg sunu tànk Euh, kon daal ci tënk bu ma doon wax dama naan euh, réunion bi bokk na ci réunion yi nga xam ne yi ëpp solo la ci biñ sosee Grand Prix ak léegi ndax li fi juddoo ci ay ay yoo xam ne euh, yu soxal Grand Prix bi la néewaana bu mu juddoo ci ci ab réunion kon bis bi day bis bu am solo boo xam ne fokk ñu daje waajal ko ndax mën nañu wax ni cérémonie bi bi bi bi bi Grand Prix njëkk a bii moo ci topp mooy ñaareel bi ndax bu ñu xoolee ci la le 29 janvier ci mille 2022 organisé woon nañ benn ca Touba muy cérémonie de lancement ba booba léegi nag ñu ne ci ay liggéey yoo xam ne ay détails techniques lay doon ci wàllu euh, liggéey bi euh, ba ñu egg ci phase boo xam ne nag loolu ñu doon jot a def war nañ ko mën a won nit ñi yëgal leen liggéey bi bu baax a baax xamal leen ni ñoom ñëpp am nañ ci wàll kenn ku ne ci nga bokk Euh, loolu ci lañ toll moo tax euh, incha allah ñuy waajal cérémonie boobu ci euh, grande mosquée Massalikul Jinaan ànd ko waa barab ba ñoom itam ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu joxe ci seen seen lépp tàmbale ko ci jëwriñ mbokk yi fay ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey ba foofu ma Massamba Diaw ñoom ak ñi ñu ko àndal ñëpp bàyyiwuñ kenn ñoom ñëpp ñu ngi ci biir wax dëgg yàlla kenn ku ci ne am ci taxawaay bu rafet am ci yéene rafet waaye yemuñ ci yéene kese waaye nag ñu ñu ñu feeñal ko ci ci ci ci seen doxalin yëpp macha allah réunion yi bare bari foofu dañ koy defee foofu ci ñoom euh, kon loolu lu ama am solo la ñu xam ne grande mosquée grande mosquée Massalikul Jinaan daal mi ngi waaj am cérémonie boo xam ne néewuñu mosu koo am de waaye xam naa ni ah bii de bokk na cérémonie yi nga xam ne incha allah jàpp nañ ni yi gën a rëy ci yi fa mos a organiser lay doon kon ñi ngi koy yëgal jullit ñëpp di ko fàttali ñëpp di bëgg ñëpp bu waajal ko nag rawatina nag sëriñu daara yi ak eh, jàngalekat alxuraan yi ak ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu yar eh, éducation islamique Euh, ñoom ñëpp ñu ngi koy yëgal ñëpp daal bàyyiwuñu kenn kon daal ci tënk ñi ngi santaat di gërëm di gërëm mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teewoon bàyyi seen yitte ngir yàlla liggéey bi euh, ci suba ñu nekk ci barab bi euh, ci turu Serigne Jili mi nga xam ne mooy jiite Grand Prix ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal liggéey bi Serigne Fallou Seck ñi nga xam ne mooy coordonnateur général bi ñun ñi ñu topp ci moom Serigne Maam Daam Ñam mi nga xam ne moo yor wàllu communication ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo lank ñoo ngank liggéey bi rek bàyyiwuñ kenn ñi ngi jaajëfal بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء